Je vous ai convié aujourd'hui pour apporter des clarifications devant l'opinion nationale et internationale par rapport aux événements du vendredi dernier avec des violences inouïes perpétrées par une certaine soi-disant opposition en perte de vitesse manipulée par des forces occultes pour tenir le visage de notre chère ville de Thiès. Je ne saurais laisser passer cela sans pour autant dénoncer ces auteurs et fauteurs de troupes, je veux bien citer nommément Ousmane Diagne, maire d'une petite commune qui a manipulé les jeunes en les mettant comme des chers à canon pour arriver à leur fin. Ce dernier, dans leur folie de brûler la ville, essaie de manipuler cette jeunesse pour venir attaquer le siège de mon parti et ma maison familiale. Il m'accuse de tenir un pistolet en main pour tuer les jeunes manifestants ce qui révèle du pur mensonge et de la calomnie. D'ailleurs, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République pour diffamation et dénonciation calomnieuse sous le numéro 1150. Je dis bien, comment on nomme aussi ingrat et malhonnête, connu et reconnu de certains bureaux, détenant du pouvoir pour manger ses permis de s'attarder à son excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Je lance un appel solennel aux responsables de Benobok Yakar, de la mouvance présidentielle et des citoyens et les citoyens de se lever pour faire face aux ennemis de la République qui ne cessent qu'à déstabiliser le Sénégal. Il est inacceptable que des énergumènes financés par des forces occultes s'attaque à un homme de dimension exceptionnelle, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui a transformé le Sénégal dans tous les secteurs et conduit le pays vers l'émergence. Refusons que ces oiseaux de mauvais augure viennent détruire toutes ces avancées, autoroutes, port de l'émergence, le terre, le BRT, la relance du chemin de fer, les hôpitaux des dernières générations les universités, etc., etc. Car ce sont des acquis pour les futures générations. La situation du pays est confrontée à une crise insonnelle que le chef de l'AFK, Macky Sall, n'a pas créée alors que c'est l'opposition qui demande le report des élections présidentielles et non lui personnellement. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Macky Sall a du mérite car il ne veut rendre un pays instable mais plutôt un pays stable et prospère à son futur successeur pour le bonheur des populations sénégalaises. J'en appelle à toute la classe politique, la société civile, les citoyens de tous bords, répondre positivement à l'appel du dialogue national en fait de sauver le Sénégal des fossoyeurs qui ne servent qu'à l'amener vers le chaos. J'attire l'attention des pères, mères de famille à veiller sur leurs enfants, en fait que ces pyromanes ne viennent les sacrifier pour un pouvoir qu'ils exerceront, qu'ils n'exerceront jamais. Je ne saurais terminer sans féliciter nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont été à la hauteur pour défendre la République. Le parti Union pour une nouvelle République réitère son engagement, sa fidélité et sa détermination sans faille derrière le président de la République, Macky Sall jamono yu ñuy commencé won tal Nous bi ñu commencé ko ci cocktail gis nañu man cible bi à journal force de défense et de sécurité yi témoin lañu bu ngeen xolé sama permanence di ngeen gis ne sanni nañ fi ay huile et autres mu ngi ci miir yi gis nañ cocktail police scientifique jël au vu au de tout le monde saa bu taal di am man maay nekk cible bi man munu ma nangu Ousmane Diagne jiital ay ndaw ñu déparé place de France romb gouvernance romb croix rouge romb manufacture ñëw ba sama buntu kër di fi taal au vu au seuil de tout le monde man askan maa war a toog di croiser le bras ñuy taal sama kër wala di attaquer suma kër yaay. parce que toog na restaurant bi muy fréquenté ñëpp xam nañ ko gannaaw mairie restaurant bala toog ne moom tribunal lay liggéey dana ma détruire parce que ay collègues ñoo fa nekk. bi gisé mu poster Facebook di yak suma der di mané dama jël pistolet di ko tirer ci ay ndaw c'est qui reflète du pur mensonge kenn gisuma ma tirer mais nak amna droit défendre suma alal ak lima mom sama kër lañu ñu ñëw di ko ñëpp diko gis gis nañu safara yi gis nañu lepp ñëpp gis nañ ko vidéo yaa ngi fi kenn gisuma ma tirer mais amna sañ-sañ lima yoon may parce que je suis chef de parti politique fi Thiès li leen métti askanu Thiès gis nañ ko man may dimbalé askan bi may fajj buubu gàcce yi ñoom ñoom dañoo nekk mairie ñoom dañoo yore mairie di détourner les fonds dimbalé ñu askan bi li may defal askan bi moo leen metti ñu pour gàkkal sama der gàkkal ñu ma mais loolu du jàll parce que man bi ma gisee mu def ay Facebook la xëy suba j'ai porté plainte auprès du procureur de la République sous le numéro 1150 Mom si ay waxam wax na tribunal lañ ko informé bi mu bureau procureur le gis sama plainte fofu. kon kan moko informer informé de def plainte man 1150 moy sama numéro plainte moy ni. plainte 1171 la Té nee tribunal lañ ko woy de ko Massaly def na plainte moo tax mu plainte pour yak suma der Dima ma di de tentative de meurtre quelqu'un que j'ai aidé quelqu'un que j'ai couvé quelqu'un que j'ai tout fait pour lui bëri naa je l'ai aidé je l'ai couvé, j'ai tout fait pour cette, euh, ce gars-là. Il y a même des gens qui m'ont dit que Bimi Bin sa parce qu'il n'est jamais le sud. Antayak Somader, Monouma Gakal, Taïla Gana Tahou Askanou Thiès, Taïla Len Gana Dimbale, Taïla Gana Am Limayor Dokhlenko. Tahaou Nanyou Nak, Tahaou Nanyou, Wah Nanyou Nak, Man Malen Lejel Ties, parce que moi défendre le président de la République, moi défendre la République. Kérok, Bini al kati Nyop Gisnanko. Que pourquoi Amon? moko ando de sa yaram dafa daw dor nañ fi ay alkati jël xeer dor ko sen bop au vu au sein de tout le monde mom nekul sama maire commune Thiès Est la bok te man sama commune la ñëw ñëw ba sama buntu kër diko tal ñëpp diko gis man bu ñuy tal sama kër dama wara courager le bras ñaata yoon lañ may ciblé di ma ko def parce que man ma len sonal Thiès ma fi doxal deug ma jage askan bi maa leen di dimbale kon yoon dafa am. nee na nag tribunal parce que greffier la fa la nek ay collègue am la preuve bima ma déposé plainte dañ ko ko informer ne déposé la plainte motax mu déposé plainte mais man mënut a yàq suma der man mako gëna lucide mako gëna gën a set loxo maa ko gën dëkk si dëkk bi mako gëna gën askan bi te man quand j'étais contre le président Macky Sall j'ai toujours assumé ma position politique tay je suis avec lui je continue à défendre la République à défendre les institutions de la République à défendre le président Macky Sall ute na ak moom nga xam ne suñu buntu kër yi miin na ko suñu bureau yi miin na ko suñu kër yi miin na ko ba récemment dem na encaissé président Macky Sall ne ko gëmul fi mu nekk da koy jàppale bi mu jëlee xaalisam la changé version dégg ngeen démb ñu bokk kër Abdou Mbow démb wax nañ ko àdduna nga war a këpp ko kooku référence la kooku day reyukaay dëkk bi laa nekk ku ma gënul fii si dëkk bi gënuloo ma la ma yor jox naa ko askan bi te tey laa gën a nañu ne nañu ba paré man ñu yak suma der man munu ma viscérale ma askan bi di leen dimbalé di leen taxaw di soxla sur ñu xey Il a der man suma xex ma koy xex viscérale sur koy ñaan moy mom xam ma il a toujours eu une haine viscérale sur ma personne Il na ma def Cuba d'une manière indirecte tay la fassal woné ko mais dina dañuy na fexé ba bu parce qu'il il a toujours été au pôle un poltron bi ñuy jàng lycée dafa mus def ay jeux suba li ma koy ñaan rek mooy grève bi na fekk suba na ko jiite seen marche bi li ma koy ñaan Ousmane Diagne moom si boppam na ko jiite moom si boppam mu ñëw sama kër euh, mu xool na ko jiite rek man loolu laa koy ñaan may wax père de famille ak mère de famille nañu téye seen i doom ñoom bu ñuy waxtaan si kaw duñ ko fekkee suñuy discuter duñ ko fekkee suñuy raket kilifa yi duñ ko fekkee bu xew jotee ñuy génne doomu jàmbur yi pour ñu leen di ray ci mbedd bi man duma ray kenn de mais am naa droit man sama kër ma défendre suma kër défendre sama bien taxaw sama alal taxaw aar suma yaay aar sumay mag aar sumay rek parce que suma kër la duma ma kenn du ko taal comme dëkk bi nag daa am yoon nañu dem si yoon moom taxaw na ne moom moom tribunal ay collègues ñoo fa nekk moo tax lu ko neex lay def toog ne restaurant ne dina ma tooxal man ku may tooxal si dëkk bi ndayam ak baayam judoogul